maa ci nekk te it euh, euh, sant nañ ci bu baax mel na ni tam xawoon naa xawoon naa yëngu <laughs> léegi nag bu ko defee fii ci Matam ah askan waa ngi waaw ñu ngi nii nag ci liggéey bi waaw ci liggéey bi defee lépp lu jëm ci wàll woowu rek ñu mun cee def si kem kàttan ah kon nag Docteur Sène moo ko moom crois qu'ils euh, sont en train de scander le nom de leur euh, leader euh, politique, un certain docteur Sen. Voilà, c'est ça aussi les manifestations. Ça convient avec euh, une forte mobilisation pour accueillir l'autre. ñi ñëw waa Feera waa Feera ngi entretien des routes pour tudd itam mbedd yi ak tali yi terrain, nous allons vous donner plein son avec euh, les populations. voilà euh, cortège bi nag a ngi nii nag di yegsi nag premier ministre moom ngeen di gis nii gannaaw euh, wërësoo gi di yegsi fi nga xam ne nii moom moo doon Matam ngir liggéey bi nga xam ne ni moom la réew mi dénk mu di mu teewal ko fii doon euh, indi fi kàddoom indi fi itam kàddu réew mi yëpp ngir li nga xam ne nii moom moo doon bés bi ak lañ ci yaakaar ñu am ci am ci ndam loolu nag moo doon bëgg gi moo doon taxawaay bi dafa naa ne bëgg googu taxawaay bi itam kilifa yi xam ne nañ bu baax euh, ici à, à Matam. Euh, je n'ai pas encore vu mon cher Ibrahima, mais certainement qui m'aperçoit et qui, a envie de, dérouler lui aussi, euh, de prendre sa dose, de prendre le relais. Et après avoir je commence perdre ces, ces énergies-là et pour euh, un peu prendre un peu de break. Ibrahima Ibrahima Diop xam naa ne léegi mu ñëw ngir aw mooy ci liggéey xam ngeen nag ambiance Fouta moo demee nii xam nga di ça c'est la culture. Donc, euh, euh, le Premier ministre et son cortège viennent d'arriver ici à, Matam, après l'étape de Wurusugi. Matam, euh, qui va connaître deux étapes principales parce que après le marché de Matam, on fera un mouvement euh, vers la berge avec euh, euh, cette côte d'alerte du fleuve qui est lancée. Le féministe va constater de viser ça et certainement étudier euh, la meilleure solution possible pour administrer à ces récurrents, une thérapie qui sera peut-être aujourd'hui, et cette fois-ci bonne, et la meilleure thérapie. donc euh, xam ngeen ne ndox mi léeg-léeg ci wàllu dex gi euh, day am itam fu muy toll ba itam di indi li nga xam ne nii moom moo doon njàqare ci askan wi loolu moo waral nag euh, ñu war a dem foofee buñ jegee fi nga xam ne nii moom moo doon gaaru ceer bi di gaara marché bi bokk gaaru ceer bi fële la woon ca Ourossogui fii nag marché bi la ci maatam xam naa rek ñu wéy di leen dégtal ambiance bi ndax euh, xam naa ne le premier ministre mi ngi waaye nag ambiance bi mu ko mën a lool xaar ñu mayaat leen ci tuuti rek ah ak askan wi nga xam ne waa waa Feera ñoom gisoon nañ leen léegi euh, waaye nag moo xam soxna yi la moo xam góor ñi la ñu seen i bale ak seen lépp d'entretien bu waa yore wàllu tali yi mbooloo mi ñii itam gisaguma leen woon defe naa ne ñoom ñooy waa cadre de vie ah ñoom ñi xam te c' est de grands acteurs de de de l' environnement du nettoiement waaw ñii rek ñoom ñooy Galoya waa maire bu Galoya teew nañu waa Sonaget teew nañu gis leen leen nii ñoom ñi nga xam ne ku tudd wàllu set ak wàllu setal di nga leen tudd waa Sonaget ak seen i ratu ak seen i bale ak seen i pelle ñoom ñëpp yi teew teew nañu ngir li nga xam ne moo doon liggéey bi di ciy sént yëpp waa UCG itam a ngi nii ku nekk ngi wane boppam ah, ku ñu gis rek bëgg xam ne ni ñoom itam teew nañu ndax ñoom la wàllu nettoiement ak waaw ah, def naa ne waaw ah, Sonaged moo bëri doole yaa ngi leen di dégg noonu la lu jëm ci wàllu liggéey bi wàllu taxawaay bi nag defe naa ne kilifa yi ñu ngi si xam ngeen ne nag moom premier ministre dafa wàcc fële ba wàccee itam di saafonte xanaa rek ñu indi leen plein son premier ministre ak saafonte bi. Ibrahima Dieng dafa ñu ne euh, waa Dakar kay kay. évidemment. On va devancer. Au parce que c'est ici de la République, le message du gouvernement de la nation tout entière, le message qui sera destiné aux populations du Fouta, mais au Sénégal euh, tout entier et à la diaspora aussi. Euh, ce sera un message très fort, euh, très attendu, comme il a l'habitude de le faire. Je crois qu'il va régaler euh, les populations euh, qui auront la chance et l'opportunité et l'occasion, naturellement, de, de l'écouter.